di ñaan sunu borom mu dëkkee dot ci waamim xéwal ci kaw yonent boobu ak ay saxaabaam ridwanullahi ala sahabati ajmain ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم بقي نجي سنسون برام بمن دفلات توفيق بني دل سوات ci ron keppaaru dundu saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokk yi xam ngeen ni kaw suuf bu yonent yi jàllee alayhimu salaatu wa salaam ku dul saxaaba yi ci nit ñi ak jinne yi saxaaba yonent bi ñoo la gën mboolem xeetu lislaam yi min al awalina wal axirin ci borom xam-xam yi nga xamante ne yu'tamadu ala nañ ci ni kudul abubakar ci saxaaba yi abubakar moo gën bokk na ci mandarga yi lay wan ni yow mii kat sa ngëm yàlla fi mu ne mi ngi fi te mi ngi ni kek mooy da ngay yëg bëgg koo bëgg abubakar ci sa xol nattukaay yi nit mën nattee ngëm yàlla bari na lool mbokk jullit yi waaye bokk na ci nattukaay yooyu mooy suñu tuddee abubakar dangay ngay yëg ci sa xol ni kii ñuy tudd moom dama ko bëgg man mbokk jullit yi nattukaay yi ñuy nattee ngëm yàlla bari na lool waaye bokk na ci nattukaay yi gën a foor yi nga xamante ni mën nga ca yégee ni yow mii kat sa ngëm yàlla fi ne mi ngi fi mooy bu ñu tuddee Aboubacar da ngay yëg ni kii nu tudd moom dama ko bëgg dëgg la sax bëgg nga saxaaba yëpp waaye nag Aboubacar dañ koy beral loxo ndax yonent bee ko njëkk beral loxo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam beneen bi ci topp mooy Aboubacar ci jëmmi boppam da di poids bu diis ci lislaam da di jëmm ju foor ci sab yonent xanaa moos dina la doy ci ne yonent bi kum bëgg nga bëgg ko te bëgg na saxaaba yépp waaye dafa beral Aboubacar loxo gis ngeen bunt yi génne ci jàkka yépp fermé leen comme des buntu Aboubacar te Aboubacar dong newu fa woon la muy wane mooy kii ku fooroon la ñu ngi taxawan ci ñaari bind tey ñu ngi nekk ñetteelu bind ci dundu Abubakar muy baadu manaqibi siddiqi wa fadaili lenn ci ngëneel yi nga xam ni Abubakarin Siddiq amoon na ko ak lenn ci ay mbir yoo xam dañ ko koy taggee xam ni képp dëgg-dëgg kii jëmm ju la Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu نينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى أبي بكر وعمر فقال هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين لا تخبرهما يا علي ينتبه نينا علي بن أبي طالب ñaar ñi la ngay seen rek mi ngi joxañ aw علي ak omar mu mag ñi bu ñu tàbbee ajana bu ñu tàbbee ajana mag ña xam nga ne newoon na Xasan ak Xuseynu jeunesse bi nekk ajana yépp ñooy seen sang waaye dañu mag ñi tàbbi biir ajana yépp ñaar ñee ngay seen ñooy seeni sang bu ñu tàbbee ajana ñoom ñaar ñooy sangu waa ajana yépp allahu akbar waaye xool lim ci teg lu am solo la dañu ko Ali lii ma wax bu leen ko nekk gi foofu mbokk jullit dañ ci jàng lu am solo mooy gis nga mbaax baaxu nit bul ko ko faral di wax moom di ko dégg seytaane dafa bokk ci ay madaaxilam mooy day profité pour yàqal la moom xam na ni mënulaa njaalaloo xam na ni mënulaa fecciloo xam na ni mënulaa naanloo sàngara xam na ni munta tee nga dem jàkk ji julli ji xam nga nu muy def day toog di xaar occasion yi soo meree am na occasion soo sonnee am na occasion soo jaaxlee am na occasion soo ñàkkee benn bu ci nekk madaxal la am waaye bokk na ci madaaxilam yi gën a bon mooy ñu di la tagg hey diw kay moom moom macha allah gis nga yooyu ëpp nay de ñun dañuy yàqalante suñu biir te duñ ko yëg gis nga nit ki soo mënta ñàkk nga tagg ko wax ko ca gannaawam wala bu mu ko dégg wala teg ci macha allah wala ba nga ñaanal ko yàlla nga bàyyi ko gis nga kàddu yu mel noonu saa bu ko nit dee dégg nit nit la bul yaakaar ni diw sàngam mi ab borom xam-xam la wala nangam kon buñ ko ko waxee moom du ko wàññi dara. kooka la gën a mën xalaat sax imaam Ibn al-Jawzi rahimahullah na téere bu am solo mu taal tuddee ko talbisu iblis. mooy technique yi iblis def bay nax nit bokk na ci mooy ci buntu tagg baabul maddaxi moo tax yéen saa salaam bu musaana gis kuy tagg nit danañ ko ray nga ko nag ray nga ko ray nga ko nag moo tax bokk na ci sunna nit ki buy wax lopp rek nga daal di jël suuf rek loolu nit ñi niñ ko foogee mooy tibb suuf déedéet ci topp suuf nga jël rek sànni ko ko ci gémmiñ gi pour won ko ne li ngay def ëpp na kon mbokk yi Aboubacar fi mu toll ci martaba suñu borom ak Omar ibn al-Khattab leen ak tab bi àjjana yonent bi ne Ali bu leen ko wax kon keneen kudul Aboubacar allahu akbar day saam boo ko musaan a tagg day jooy Aboubacar boo ko musaan a tagg ay yow kay yow sa xel dal na yow yonente bi yaa ànd nag moom yaa def nangam day jooy su jooyee xam nga lu muy wax allahuma la tuaxidni bi ma yaquluun waj'alni xayran mimma yazunnuun waghfir li ma la yaalamun cheikhul albani rahimahullah mas naa déglu benn kasetam ndeysaan benn waay di ko tagg bi mu ko taggee dafa jooy bi mu jooyee mu ni su fekkee Aboubacar siddiqu hadihi al umma mu ni moo doon wax wax ji kon man damaa xamul man lan laa war a wax man après kon mooy allahuma yow yàlla laa tuaxidni bi ma yaquluun bul ma jàppee nit ñi li ñuy wax Aboubacar moo baax Aboubacar moo nangam ñii ki ñuy présenté xamuñ ko sax man mbaax giñ may jiiñ ñoo ko foog waaye amul ci man moom Aboubacar moo doon wax loolu wa ja'alni xayra mimma yadunnuun nit ñi liñ foog ni noonu laa baaxee maa ngi lay ñaan nga def ma ma gën kooku ki ñuy présenté dama bëgg nga def ma ma gën ko waaye lu mu ci teg waghfir li maa laa yaalamuun ayib yi nga xam ne ñoom xamuñu ko maa ngi lay ñaan yow yàlla nga jéggal ma mbokki jullit yi kenn ku ci nekk li nit ñi wax yow xam nga sa bopp xam nga ni nit ñi ki ñuy présenté du yow ndax yow am na yoo xam ci sa bopp te nit ñi xamuñu ko am na yoo xamante ni ñoom tudduñu ko de parce que dañ koo xamut ci ay ayib la te it aajowa nga lool même nit ñi bu ñuy wax sax li ñuy wax bu amee aajowa nga romb foofu abdourahman ibne awfin nee na benn bis maa dégg ci sama nopp kenn nettaliwuma yonent yàlla bi toog ak saxaaba yi di leen waar ba mu yàgg mu ni abubakrin fi ljanna wa umar fi ljanna wa usman fi ljanna wa ali في الجنة وطلحة في الجنة وزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة wa abu ubaydata amir ibnu aljarrah fi ljanna allahu akbar ñii ñoom la ñuy tudde al asharatu almubasharuna bil janna yàlla xam na ni nun li lay wan ni maanaam soxla nañ ngëm yàlla gu romb fi ñu toll li lay wan ni maanaam suñu yëg-yëg dese naa dund dëgg dëgg ni yëg-yëgu ko gëm yàlla war a dundee lan nga imaginer mbokkum jullit mi ki jëmm joo xam ne mi ngi dund faatoogut moom xamul sax ci lan la nar a mujj moom xamul dana gudd fan wala du gudd fan te yonent bi alayhi salaatu wa salaam jàkkaar moom ni ko yow moom ak lu mën xew àjjana nga jëm lu mën a xew yow àjjana ngay dem mbokk yi loolu na am na ñu bare bëri ci saxaaba yi amoon nañ lu mel noonu moo tax ku mel ni imaam ibni hazmin moom dafa dogu ni sax ni jamiu saxaaba fil janna manam dafa indi ay tektalam yu bare bare bare bi tektali jeexé jeexee mo leen sahaba yëpp sax aljana lañ jëm waye nak ci biir sahaba yi mom amna ñu yëneent bi jaglé lon ni ñi ñom danañ jëm aljana yëneent bi alayhi salatu wasalaam mu ni abubakrin siddiq day tàbbi àjjana allahu akbar subhanallah booba yonent bi faatoo bu booba saxaaba yaa ngi dund booba yonent bi abubakar sax nekkagul amirul muminin yonent bi ni ko yow àjjana nga jëm Omar day dem àjjana Ali day dem àjjana Osman day dem àjjana Abdurahman ibn Awf day dem àjjana Saad ibn Waqqas Saad ibn Abi Waqqas day dem àjjana Saïd ibn Zaydin day dem àjjana Talha day dem àjjana Zubayr day dem àjjana Abu Ubaydata Amir ibn al-Jarrah day dem àjjana fukk googu ñooñu la ñuy al asharatu al basharuna bil janna waaye mbokk jullit yi xoolal ñii bi leen yonent bi waxee yéen da ngeen dem ajana keroog lañ gën a góorgóorlu ci jaamu yàlla xam nga loolu lu mu lay wan dëgg dëgg ñi yeyoon nañ li ñu wax maanaam boo seetloo mbir mi ci biir man dama koy natt ci sama bopp ma ni man xam naa ne man mu daayit mii ku ma waxoon ni ajana nga jëm ci affaire bi leer keroog laa fay jaaree tàmbalee bàyyee ko parce que loolu laa doon guddi man su ma coono bi yëpp fi ne bëgg a tàbbi àjjana dong ma ko waral suñ ma waxoon ni ma fa nga jëm kay lu may sonnati waaye li lay wan ni ñee mérito nañ ko moo tax ñu wax leen ko keroog biñ leen ko waxee ci lañ gën a dogu ci jaamu yàlla keroog lañ gën a tiit ci seen i jëf keroog lañ gën a doole ak ragal yàlla loolu moo lay wan ni kon noonu nu war a góor góor góorgóorlu lañ te fukk yi yonent bi garanti ajana kenn ku ci nekk am ngay jaral yu rëy insha allah bi dund abubakar jeexee bala may jàll kenn ci sahaba yi al asharatul mubassaruna la ñuy tegale kenn par kenn ngir ngeen xam ni ñii kat li tax yonent bi siti leen dara lan abdullah ibn amr nee na yonent bi saa sallam nee na abubakar anta saaxibi ala al xawd wa saaxibi fi lgaar yow abubakar yow moom yaay sama àndandoo ci biñ nekkee ci xunt mi te buñ demee kawsar yaa fay nekk sama àndandoo allahu akbar alxawd yonent bi dafa jekki-jekki ba mu yàgg mu sëgg nii sëgg bi yàgg lool lool ba saxaaba yi jaaxle mu siggi daal di muuñ saxaaba yi ni ko lan la mu ni aw saar dee wàcc léegi sunu borom di ma bégalee ak xéewal gum ma defal yàlla daf ma berndeel ak dex gu nekk ca pegg ajana dex goo xam ni ndox mi moo gën a weex meew moo gën a neex lem ah la fa nekk ci ay koo koppi naanukaay yi sol dañu biddiwu asamaan yi nde dex gaa nga tudd kawsar ku ca guux ab guux soo naanatee dalaa neex waaye doo soo mar allahu akbar benn guux rek boo ko ca naanee soo naanatee dalaa neex xam ngeen ni loolu su ko sunu borom defalee ñenn fii ci àddina dinaa koy nettali ci njàmbaarte jigéen ñi keroog ci bi ñuy gàddaay am na benn jigéen du ñuy wax ay man ummu ayman moo juróon usaama usaama tabni zaydin ndax ummu ayman soxna zayd la woon ummu ayman nee na bi ma xamee ni fitna yaa ngi bari damaa bàyyi ba guddi jot ma rocceeku ndànk topp guddi gi di daw pour gàddaay fekki yonent bi madina nee na ma daw ba yóor na ma ni sori naa dëkk bi mu tombeeg bis boo xam damaa waroon a woor mu ni ma continuer woor te fekk mi ngi gàddaay kooku am na ngant ndax sacrifice lay def te dafa nekk ci tukki waaye teewul mi ngi woor de nee bi ma wooree ma yendoo dox ci naaj wu tàng wi ba dog jot aw ma lu ma lekk aw ma lu ma naan nee na bi dog jotee ma jaaxle lool ma jekki jékki rek déglu nag leng leng leng leng leng leng ma tiim ci asamaan si seen benn satala buy yooru jóge ca kaw di ñëw nee na ma jékki-jékki ni ku nikk guux ab guux affaire bi yéegaat bi mu yéegee tuuti ma jékki mu déggaat muy kelang léegi ma ñëwaat ma téye ko guux ab guux affaire bi demaat bi mu ñettee mu téye ko guux naan ba màndi ummu ayman nee na li des ci sama dund gi saa su ma naanee sama xel a nekk ci ndox waaye mu ni ba bi mu faatoo mu ni du du yëg mar mais day jékki rek yëg moom gëj na ca ndaala rek mu dem naan loolu ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne sunu borom may na ko yenn ci ay jaamam baax fii ci kaw suuf yent yàlla mu ni kaw sar moom ku ca naan ab guux yal na yàlla boolañ ci ñu ciy naan moo tax euh, benn borom xam bu mag nee na lii day wane ne yu rëy yoo xam ne Abubakar am na ko ndax yaay sama àndandoo ca gaaru Hira loolu poids bu lay tekki ci lislaam yaay sama àndandoo ca Kawsar loolu poids bu rëy lay tekki yawmal qiyaama Abubakarin Siddiq nee na keroog bi ñuy gàddaay dama ne bi law anna ahadahum nadara taxta qadamayhi la absarana i yonent bi de gis nga gaay ku ci sëggoon di xool ay tànkam rek dinañu séen fekk ñu ngi ci biir xunt bi te foofu lu doy waar am dafa mbokk jullit yi gis nga li lay wax ni Aboubacar ku bëggoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam Aboubacar dafa ñëw ci biir xunt dugg bi mu séenee xunt mi mu tilim mu ne yonent xaaral ma dugg parce que yow da ngaa sonn Aboubacar dugg génne ñax yeeg salte yéeg dég yeeg suul pax yi ba mu àggal mu des benn pax Abubakar nee na xotti naa suma kaala gi ba mu jeex saañ ko ci pax yi mu def benn pax su ma xel ma ni ma waaw benn pax bi est ce mu jaan munu cee génnee mu fett yonent bi mu ne waaw waaw mu ne mu jël sama oom bi sës ko ci pax mi pour mu fatt ko nee na ma ne yonent bi da ngaa sonn tëddal ci sama pooj bi di noppalu nee na yonent bi dinañ tëdd ba ne xefeet commencé yi nelaw rek jaan daal di may màtt ci tànk bi ko jaan ji màttee ci tànk bi dangar yi tàmbali yéeg xam ngeen ni góor gu dëgër fit ba mel ni Abubakar ñemeñ ca gëm yàlla bu jooyee rek yëf yi métti na bu jooyee rek yëf yi métti na Abubakar nee na yonent baa ngi nelaw te bugguma koo yee nee na bii dangar ji di metti may sama rangooñ di génn benn rangooñ bu tàng moo ni tëb ci dund yonent bi sallallahu alayhi yonent bi tëb jug ni ko lu xew mu ni ko pax mii di def mel ni am na lu ma ci màtt yonent bi daal di ko koy moccal mu sedd gis nga matt matt boobu am na ci borom xam ne dangar jooju moo ko topp ba ni mu faatoo moom Abubakar Siddiq radiyallahu anhu moo tax bu ñuy lim suhadaa yi xam dañu Ali daa shahid Ousmane ak Omar moo tax ba dañ ciy boole Abubakar lu tax ndax ci dangar jooju ci la ak faatoom jóge am na ñu ko wax ci borom xam-xam ñu bari kon loolu da lay wan ni mbokk jullit yi kii fi mu tegoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam foor na lool. abdullah ibni omar nee na ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala suñ jamono nee na ci jamono yonent bi ñun ñëpp dëppoo woon nañ ci ni Aboubacar ku dul moom moo la gën bu Aboubacar jàllee ku dul Aboubacar Omar moo la gën bu Omar jàllee ku dul Omar Ousmane moo la gën am na ñu ci boole ku dul Ousmane Aliin moo la gën benn bis ndeysaan yonent bi dafa toog ak saxaaba yi di leen waar ba mu yàgg mu ni ma nafaani maalu maalun qattu ma nafaani maalu abubakrin fa baka abubakrin siddiq yonent yàlla bi nee na mësumaa gis jëmm joo xam ne li ko yàlla wërsëgal ci alal jariñ na ma lu toll ni alal yi abubakar ni ma jariñee rek ndeysaan ñu gis abubakar bënn bët yi jooy xam ngeen yéen a ngi fàttali gerte wax naan ko gaawoon jooy la nag xam nga loolu loolu bindi ni suñ borom la léeg dëgg la ngëm yàlla da koy waral waaye dafa am nit ñoo xam ne yàlla moo def seen xol dafa oyof dañu gaaw a jooy comme ni mu amee ay nit yoo xam ne seen xol dafa dëgër gaawu noo jooy aw bakar xol bi dafa oyofoon ngëm yàlla gi kadalika bëgg yonent bi nag rawati ko mu jooy mu ni ko hal ana wa mali illa laka ya rasulallah mu ndax du man ak sama alal yépp dañ koo préparé pour yow maanaam daf ko bëgg a wan ni ko man ak sama alal yépp pour yow la xoolal mbokk julit yi abubakar lim liggéey ci lislaam ak lim joxe ci alal lépp wëlbati ko yonent bi di ko tagg ci loolu muy jooy sallallahu alayhi wa sallam benn bis yonent bi dafa yéeg ci kaw Uhud moom ak Abubakar ak Osman xadis boobu ñëw na ci ay riwaayaat yu bare bare am na ñu ci boole Talha am na ñu ci boole Abdurahman ibn Awf ila axiri waaye bi mu yéeg moom ak Osman ak Omar nee na mu ngi mel ni nga yéeg ci kaw bar bi rek bar bi yëngatu mais dañoo yéeg ci kaw Uhud muy xeer wu rëy nekk ci ginnaaw dëkk bi ci Màkka tey mu ne ci digg dëkk bi nee na dafa yëngatu nee bi mu yëngatoo. yonent bi dafa jël tànk bi këdd ko ni ko usbat uhud dama bëgg nga dal xanaa danga xamul ni ab yonent akub xaritam akub soppeem ñoo nekk ci sa kaw nee na montagne bi daal di tekk tekkaaral yëngatootu allahu akbar moo tax danaan jékki-jékki xool uxud ni uxud jabalun yuhibbuna wa nuhibbu uxud ngeen di seen aw xeer la waaye bëgg nañu ñu nit bëgg nañ ko aw xeer aw xeer yonent yàlla bi daana wax saxaaba yi wan la ñu leen gis nga yëg-yëg yi moo feebar wallahi sunu yëg-yëg yi moo feebar yonent bi nee na saxaaba yi su ngeen bëggee léegi ngeen jug ñu ànd ma wan leen ak aw xeer aku garab goo xam ne romb naa leen ba tàyyi ñu naan asalaamaaleyka ya rasulallah bu ngeen génnee léegi ma wan leen ko ñu ngi fii ci àll bi du ngeen jóge xaaru xiraat bi dama ko ñëw nee na romb naa aw xeer ba tayi xeer wi ni ma asalaamaaleyka ya rasulallah mu ni ma delloo ko nuyoo mu ni garab a ngi xam ne romb naa ko ba tàyyi garab gi naan ko assalaamu alayka ya rasulallah mu ne ma delloo ko nuyoo loolu yonentu ne ko saxaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain bokk na ci ngëneeli abubakarin abi musa al ashari nee na benn bis damaa jàppee sama kër ba pare daal di génn ma ne tey moom bëgguma xëy liggéey tey moom dama bëgg journée bi yëpp ma ànd ko yonente moom abu musa ma wax loolu li lay wan solo si foofu mooy abu musa xam ngeen di woon mag de saxaaba yi ñu bari da ngay dégg seen tur ak ampleur bi ñu am fekk ñoom ca gonay saxaaba lañ leen di limu donte nag saxaaba yi amuñ gone ay mag la ñooy sunuy mag waaye nag ñoom mag ña bu ñu dajee abu musa ca gono ya la woon abdullah ibn abbas ca gono ya la woon abdullah ibn omar ca gono ya la woon rafi ibn xiddiij ca gono ya la woon ah saxaaba yi bare bare bari yoo xam ne ni ñuy foor foor foor ay gone lañu woon ci jamono jooju abu musa al ashari nee na ma ne tey de moom yonent bi laa bëgg sama journée yëpp ci moom laa ko bëgg a def nee na ma génn dugg ci jàkka ji ne ana yonent bi ñu ne ma yonent bi newu fi ma ñu leen fu mu nekk ñu ni ma am na benn tool bu nekk fii ci ginnaaw fa la dem tey nee na ma daal di koy topp ba ca tool ba nee na tool bi mi ngi am benn teen bu ñuy wax ru ariis nee na ma ñëw ñu ne ma yonent bi mu ngi fa la ci ginnaaw day faj aajoom nee na ma xaar ko ba mu paree ma sottil ko mu jàpp nee na bi mu jàppee ba noppi nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di ñëw ba ci teen bi toog ci teen bi teen bu gàtt la woon comme ndox mi dafa neex yonent bi di ci naan daal di jël ay tànkam sëpp ku mu dugg ci biir teen bi maanaam mel ni ku ci am aajo rek nee bi loolu amee ma ne tey maay nekk bawaab bi bawaab mooy bëkk néeg comme ni ñu koy waxee bëkk néeg mu ne tey maa koy organiser ku ñëw rek man maa lay nee na ma jékki-jékki ba mu yàgg am ku fëgg buntu tool bi fi ñu nekk nee na ma dem ni ko yow la kan mu ni man la aw Abubakar ma ne ko xaaral ma ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ko ah am na koy fëgg de mu ne ko kan mooy fëgg mu ne ko Abubakar la mu ne ko nekkoon a yegg te buy dee dugg àjjana allahu akbar nee na Abubakar ñëw pour walla Abubakar ni mu bëggee woon yonent bi alayhi salaam mu ñëw fekk yonent bi toog sëpp tànk yi mu ñëw moom it sëpp tànk yi comme ni yonent bi def sallallahu alayhi wasallam nee na ñu jékki-jékki am ku fëggaat ma ñëw ni kookan la mu ne man la Omar ibn al-Khattab mu ne ma nee ko na dugg si te nga xamal ko buy dee tàbbi àjjana nee na Omar ñëw mooy fekk gars yi ku nekk sëpp dafa wokk dañoo wokk seen tànk yi nag dañoo wokk seen tànk tuba yi ba mu yegg ci óom bi ñu tàllal tànk yi noonu mu Omar moom it ñëw gis te gis nga li gën a yéeme rek lay wax ne saxaaba yi ay kéemaan la ñu woon ñoom da ngay gis ku ñëw fekk ñu def affaire doo laaj ñu tax ñu def ko doo laaj dara da ngay ñëw rek def tax jàpp sama sa njàpp fekk nañ yonent bi wog na yére bi ba mu agsi ci óom bi Abubakar ñëw def ko Omar ñëw it laajte wut benn bis daa ñëw fekk yonent bi ak Abubakar ngeen may wax lu ngeen di jooy bu jaree jooy ma jooy bu jarul jooy <laughs> loolu mooy def xoolal loolu boobu xam ngeen lu xewoon yonent bi salaam soxna yi ñoo jekkoon di ko laaj dépense xam nga rek jëndal ñu lii di ko indil fitna ba yonent bi mer daal di génn dem ci jàkka ja toog am fa weer ñii naan dafa fase soxna yi ñii naan fase wuleen ñii naan daa mer coow li ni kur ci biir dëkk bi ah loolu benn xisa la bii keroog bi nga xamante ni waa waa waa Badar waa Badar waa Badar bi biñ jàppee ay prisonniers de guerre ñii ne nañ leen rey ñii ne buñ leen rey nañ leen baal ñii ne nangam Omar ibn Khattab ne baal fan nañ leen rey ñoom ñëpp te buñ leen dee rey kenn ku ci nekk nañu xool ki nga bokkal deret nga rey kooka ngir ñu xam ne ñun yàlla ak yonent moo ñu gënal lu mën a am kooku fooroon na de mbokk yi yonent bi ni ko déedéet nañ leen baal bi yonent bi ne nañ leen baal aaya alquran wàcc suñu borom daal di farak Omar ibn Khattab dañ leen war a rey aw bakar ak yonent bi ñoo bokkoon xalaat ñoom ñaar ñu toog di jooy Omar dal di ñëw fekk leen fa ñuy jooy xamul lu xew mu ne yonent bi li ngeen di jooy wax leen ma ko su fekkee lu jar jooy la ma toog jooy su fekkente ni jarul jooy ma toog jooy jooylu yonent bi ni ko tey su mbëggalum yàlla doon wàcc mennam yow dong laa ci mucc daal di koy xamal ni ko alxuraan bi ñëwee lii la wax ak lii ak lii ak lii kon gis nga ñooñu mbokk yi foofu ñu tolloon ci bëgg yonent bi sax jaar na nga di ko xam su ko defee yow ngay natt sa bopp Ah, Ousmane daal di agsi bi Ousmane agsee yonent bi daal ni kookan la ñu ne ko Ousmane la biñ ñee Ousmane la yonent bi ne teg xam nga affaire bu wuute na nekk mu ñëw bu dee tàbbi àjjana kee mu ne nekk mu ñëw bu dee tàbbi àjjana kookan la Ousmane mu ne teg mu ne teg ab diir ba yàgg mu ne ko nee ko na yegg si bu dee tàbbi àjjana waaye cay ginnaaw naq yu métti ginnaaw natt moo tax boo delloo ci albidaaya wa nihaaya nga xam ne ibni kasir daf ca daf ko liggéey liggéey bu kéemaane ci wane mbir yi nga xam ne yonent bi moo ko waxoon day am ci mujjub jamono moo tax gis nga keroog bi ñu rayee Ousmane ibni Affan Abdullah ibni Omar dani lii de bu leen Abu Hurayra waxoon ni leen ni xam nga Abu Hurayra nee na mokkal naa ñaari ndab ci yonent bi sallallahu alayhi wa ci misaal su doon daa nettali fukki junni xadis mu ni maa ngi fukki junni xadis yoo xam ne ñemewuma kaa wax lu tax ay fitna ni muy amee bu yëf yi di faat bu nit ñi faat Osman Abdullah ibnu Omar mu ni bu leen Abu Hurayra waxoon nii leen yonent bi nii la waxee noonu la ñuy faatee Osman du ngeen ko gëm Abu Hurayra nu oxon nii la ko yonent bi waxee woon ko dama koo xamal ba pare noppi bis boobu Abu Hurayra am na lu ko naqari lool xam nga Abu Hurayra benn bis yonent bi dafa bam ñu toog ñëw yàgg rek yonent bi xiif ak saxaaba yi ni ko yor lu luñ lekk gaa yi kenn yorub dara Abu Hurayra ni ah man de as as tàndar ma ngi mi ngi nii sama poos daal di koy génne yonent bi dal ni ko tàllal ma ñaanal la ci mu tàllal mu ñaanal ko yonent bi ni ko jëlaatal tàndarma ji nga dugal ko ci biir mbuus gi sa bët bu xool li nekk ci mbuus gi bul ko làmb saa boo soxlaa yootul jël tàndarma dem sa yoon Abu Hurayra nee na ba bis bi ñuy reyu Asmaan mbuus gi daal fee laa ko wekk ndigal nag laay jëfe du ma ko xool duma ko làmb du ma dugal suma loxo moom daal suma ma soxlaa tàndarma damay yóotu naa ci fekk tàndarma mbokk yi xool leen jiir boobu ni mu yàggee yonente ba mu faat Abubakar ba mu faat Osman ba mu faat ah Omar ba mu faat ba bis bi Osman di faatu nee na ci laa jël mbuus gi xoolal diggante bi ñaata at ñaar fukki at ak lu topp ñaar fukki at ak lu topp nee na mbuus gi suma ma rombee damay ñëw rek jël tàndarma dem suma yoon nee na keroog laa jël mbuus gi takk ko suma ndigg bi xam nga xabar xabar jéeg coow lu bari léeg fitna yi far mbuus gi rot wadd keroog laa ko mujjee gis lii ay firnde la yuy tax nga xam ni saxaaba yi fi ko fi ñu tegoon yonent bi saa sallam bokk na ci li ko waral mooy ay mbir yu bari yuñ gisoon ci moom yu leen yéem ci riwaaya bii sax am na beneen riwaaya boo xam ni yonent bi daa jël ay dàllam jox ko Abu Hurayra ni ko taxawal ci buntu tool bi koo seen muy bégal ko ne ko képp ku faatu te fekk mi ngi seede ni yàlla rek lañ war a jaamu Muhammad ndawal suñu borom te dëggu ci moom dina dugg àjjana mu dajeeg Omar ibn al-Khattab wax ko ko rek Omar di ko tër damay di ngay wax mos naa dégg ndax ba ma ko woon Abu Hurayra ñëw ci yonent sasalam ni ko Abu Hurayra ni ko xanaa gisoo dàll yi nga dàll yi di mu ne ko xàmmee naa ko dàll yonent bi la mu ne ko xam nga ni kay yonent bi ma ko jox pour muy nga Omar ko de dafa ñëw ba ci yonent bi laaj ko ko mu ne ko wax dëgg de wax maa ko ko wax gis te wér na ni képp ku faatu te fekk mi ngi fas ci xolam gëm ni yàlla rekk lañ war a jaamu amul morom amul ndend jurul kenn kenn juru ko moo fi jëkk jëkkantiwu fekk kenn moo fi mujj du fi mujj ak kenn ah gëm ni Muhammad ndawam la yonentaam la yeneen yonent di ñëw ci gannaawam nee na boo faatoo di nga tàbbi ajjana ala ma kaana min amal loo yóbbaale ci ay jëf nu mu toog di nga dugg ajjana mbokk yi bul ko dégg nga yaakaar yëf yi dafa yombee ren yombeewul noonu de léegi da ngay foog ne affaire bi loolu nga gëm fekk am nay taq-taq yi ci am de moo tax aqida kenn du ko jàng ci ñaari fan dinaa leen wax ni ku yaakaar ni benn conférence ngay dégg wala benn dars wala benn téere aqida yaakaar ni yëf yi mokk na saxaaba sa sasalam ñoo gënoon a neex xel ci ay taalibe seen professeur moo dàq jàngale ci kaw suuf muy yonente bi alayhi salatu salaam te matière bi daf leen koo jàngal fukki at ak ñett doogu yow nga bëgg cee déglu benn kaset benn muxaatara benn dars benn téere nga yëg affaire bi jeex ndax nga sa bopp de pas-pas dañ koy jàng ba keroog ngay paas abi hurayra nee na benn bis yonent bi dafa toog ak saxaaba yi yonent bi ni leen benn bis daal benn sàmm moo nekk ci àll bi di sàmm nee na muy sàmm ba mu yàgg ak till fàq fële rek plongé rek ñëw rek nag benn xar rek daw ak moom sàmm bi daal di xàcc xàcc yat bi di ko waajo doon ey ey kii na till gi daal di wëlbati ko ni ko sumuwaay dafal ndànk bisa ngi ñëw boo xamante nii man nii maay sàmm xar yeeg bëy yi lii wërtale wu ma yàlla jox xaw ma lekk ko tey nee till gi moo ko wax loolu saxaaba yëpp yéemu yonent bi ni leen beneen waay moom aw nagam la yore di karwaase pour di di ko bayee takk ci machine nee na nag wi dem ba mu yàgg nag wi gestu ni ko hey sa karawaat gi laa bëgg nga téye man yàlla binduma pour ñu may karawaate may bay saxaaba yëpp yéemu yonent bi nii non saxaaba yi dañu subhanallah ndax dañoo yéemu yonent bi ne leen laaj leen Abubakar Abubakar da kaa fekk fekkewu ko di xam nga yonent bi ne Abubakar fekkewu waaye pour wan la ne la huwa saddiq mu ñu lii may wax laaj leen ko Abubakar nii toog laaj leen ko te buñ ko laaj Abubakar danaan dëgg la kat danaan dëgg la gis nga ba yonent bi gàddaayee sallallahu alayhi wa sallam ñibbisi abu jahlin ñoom ak payi ancien bandi yooyu dañ ne nag xanaa Aboubacar tey nag moom di nga di sa waaji ndax dégg nga li mu wax li mu wax de xel sax mënu koo dégg nee na dem démb ci guddi jóge na fii dem Jérusalem baytul maqdis nga xam ne ñun suñ giléemi ay weer la ñuy def foofu may wax mu ne ñoqale na dem ci asamaan sax ci guddi gi Aboubacar moom xam nga problème bam lan la mooy est moo ko wax wala wax Aboubacar problème am du ndax am naag amul de xam bu nekk di hésité waa bi moom est naa am affaire buy am nu mu amee Aboubacar moom problème mooy est-ce que yonent moo ko xol wax su ko wéree ni moo ko wax rek mu ni gëm naa ko ñu ne ko lu tax mu ni moom damay yeewu mu ne ma yàlla nee na te man xamu fu mu gisanteeg yàlla ma dëggal ko kon kay lay lu ma wax lu dul loolu war naa ko mën a gëm moo tax Ibn al-Qayyim buy tagg Aboubacar nee na bokk na ci liñ koy taggee mooy moom mboolem ñi dëggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ci gën a dëggal yonent bi alayhi salaatu wa salaam eh, Abdullah ibn nee na keroog bi Omar ibn al-Khattab faatoo ñu tëral ko ci kaw lal di ko waaj a jullee ndeysaan nit ñi di ñëw ñii di jooy ñii di yërëmtalu nee na damaa jékki-jékki rek gis ku ni ma nii téye sama mbagg mi ma gestu muy Ali ibn Abi Talib nee na maa ngi dégg mu naan ah Omar dëgg dëgg dëgg bàyyiwoo ci sa gannaaw ku mel ni yow mu ne Omar dem nga de waaye bàyyiwoo ci sa gannaaw góor gu dëgëree ni yow te maa ngi am rafet njortu ni. ñu suul la rek moo tee nga yegg ci yonent bi ak Abubakar ndax yàgg naa dégg sama nopp bi yonent bi naan dem naa maag Abubakar ak Omar dugg naa maag Abubakar ak Omar bañ génnee maag Abubakar ak Omar ñoo ànd déglu bi may dem mu ni maag Abubakar ak Omar ñoo ànd bi may dugg maag Abubakar bi ñuy génn ñoo ànd xoolal wax jooju ni mu façon mbokk yi bi ñuy dem ñoo ànd bi ñuy dugg ñoo ànd bi ñuy génn ñoo ànd te ni mu ko waxee noonu la amee noonu lañ doon àndee noonu lañ duggee bi ñuy génn àddina it noonu lañ tegalante moo tax ñoo leen suul gis bi Umar ibn Xattaab faatoo ñuy esti fu ñu ko war a suul parce que fi ñu ko war a suul boo fees na xam nga lu tax mu fees benn place moo fa sol ci Aïcha nee na place bii moom moom du ko jox kenn man laa bëgg ñu suul ma fi ma dend ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Omar ibnul bi ñu ko jamee ci jàkka ji ba jàppoo ko andi ko ci kër gi mu yebal Abdullah ibn Omar ni ko demal nga wax Aïcha nee ko xoolal waxu ko amirul muminin de subhaana rabbil ala xool ñi ni ñu oyofee mu ne ko soo demee ne ko sama baay Omar nee na moom de bu sañoon bu faatoo ñu suul ko mu dendeeg yonent bi te xamoon na ni place bi sa bopp nga ko fa bàyyil ndax doo ko ko dimbalee Omar mi ngi tëdd mënta yëngatu mënta yëngal bopp bi affaire ba mi ngi ci sukuraat waaye bi mu déggee ndaw li ni salaamu aleykum dañuy bërit jóg xam nga lu mu bëgg a dégg waaw bi mu bi ko Abdullah ibn Omar ne wax naa ko Aïcha Aïcha ne na ah place bi dafa boppam la ko dencaloon waaye isaar na la ko isaar mooy lu bon li wolof yi wax contraire ba sama bopp ma la gënal kat du bañ naa la loolu du waxi jullit de du waxi kenn du piir la lii man maa ko bëggoon waaye isaar naa la ko mooy bàyyee naa la ko ci lañ jël Omar daal di koy suuli foofu mu dend ak yonent bi alayhi salaatu abi darda nee na benn bis dañoo toog ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci jamonoom ñu jékki-jékki mu yàgg rek seen Abubakar def nii wakasu wakasu wakasu ba ci kaw xam nga loolu ko ko def rek moom mooy wareen am na lu xew de bi mu yegg see rek bi ne ah mbaa jàmm Abubakar ne ko du jàmm de mu ne ko lu xew mu ne ko Omar ibn Khattab de maa ngoon dañoo séqoon ay wax léegi seytaane man bañ xuloo bañ xuloo man aw Aboubacar yëg naa ni maa ko tooñ ma topp ko ba këram ni ko baal ma mu ni baaluma la <laughs> day na waar de Aboubacar di yonente sa salaam damaa joteeg aw Omar ma yëg ni maa ko tooñ topp naa ko ba këram ni ko baal ma mu ni baaluma la ndax booba mer la ah mbokk yi ñaar ñii ñaar ñii ku xaj seen diggante kooku ponkal la de seytaane saay saay la de bàyyi leen ko xel mbokk yi Aboubacar ak Omar kaj mës ngaa xalaat ci àddina ni dana mën naa dox seen diggante gis nga seytaane àpp na ko vingt ans muy togg li muy togg du xëm du këpp du xëm dana ko baaral ba yàq ko sayaboo kenn ku ci nekk na ko bàyyi xel na ak loo jege yoo jege sa waay ak lu ngeen gëm gëm gëm yàlla dee leen mooy te di yàlla boo mosoon a foog ci àddina nii Aboubacar ak Omar seytaane xaj na seen diggante oxon kay togg na li muy togg ba yàq ko nee na bi mu yegsee Omar daal di toog ba mu yàgg moom it xam naa xelam yedd ko mu ne ah li ma def te jaaduwut na ku toll ni Abubakar ak ni ko yonent bi fonkee mu ñëw baal baalu ma la Omar daal di génn këram ñëw kër Abubakar pour ni ko wax ko baal naa la mu ñëw ñu ne ko Abubakar néew fi fu dem ñu ni ma nga ca yonent bi saa sallam Omar daal di waaxu topp yonent bi saa sallam ba yegsi topp Abubakar ba yegsi ci yonent bi sallallahu alayhi wa mu yegsee Abubakar daal di koy séen nee na bi Omar di egsi ñoo ngi gis yonent bi xal kanam gaa ngi soppeeku xam nga ku mer buy dugg ci ni kanam gi changé ñu gis yonent bi kanam gi di soppeeku mel ni ku mer bi melee ni ku mer Abubakar jege si ba toog ci yonent bi sukk ba ci oom yi ni ko ma ngi mi ngi ñëw de te wallaay maa ko tooñ nag bu yeboo nga wax ci nag maa ko tooñ de ndeke yonent moom lim nar kenn mësu koo foog bi mu yegsee Omar daal di yegsi daal di toog Aboubacar ni ko yonent bu wax ci maa ko tooñ de mu ne Omar dama bëgg nga bàyyi Aboubacar laa wax tout tranquille xanaa xanaa Aboubacar bàyyil Omar tout tranquille la ñu waroon wax Aboubacar nee na maa tooñ te mu reconnaître na ko yonent bi ni Omar dama bëgg nga bàyyi Aboubacar bis niki tey bul ko tooñati ku tooñ a tooñ bi waaye mu ne Omar dama bëgg nga bàyyi Aboubacar bul ko tooñati bi ma wootee yéen ñëpp ma xañ seen alal Aboubacar ma jox alalam bi ma waxee ñépp dañ maa weddi woon moo ma njëkk a gëm damaa bëgg kii ngeen bàyyi ko yéen ñëpp sax laa waxuma sax yow Omar yéen ñi ñëpp laa bëgg ngeen bàyyi ko saxaaba ya nee na bis ni ki keroog kenn ñemeetu ta laal Aboubacar maa nga jot ak moom ndax lii kenn musu koo gis Aboubacar moom mi tooñ nangu na ni moo tooñ waaye yonent bi faral ko loolu xam nga lu muy tekki. da lay wan ne kii poids bu rëy la am fa yonente bi sax Omar ci moom daa mujj moom bëgg ñu baal ko moom moom maanaam moom mi waroon a baalaate daa bëgg moom bëgg ñu baal ko moo lay wan ni li tax Omar toog ba mu yàgg mu xool Aboubacar naan ko yaa laytani kuntu shi'ratan fi sadri Abi Bakr ak a neexoon ma nekk kawar yàlla def ba ma nekk kawar ñu saxal ma ci dëndu Aboubacar ndax xam naa ni moo ma gën fuuf yonente bi alayhi salaatu wassalaam euh, toxal nañ jëlee ci Muhammad ibn Sirin ne dañoo laaj Anas ibn Malik ni ko waaw yonent bi mas naa fuddan sikkimam fuddan ci kawar yi weex yi mu fuddanee wala weexul sax mu ne waaw mas naa fuddan waaye nag lu tuuti lu tuuti la ko mas a def waaye Abubakar ak Omar moom ñoom ñaar ñëpp kenn ku nekk mas naa fuddan sa sikkim waaye keroog sax Makka nee na papay Abubakar Abubakar daa dem jël ko ni ko kaay tuub dugg ci lislaam bi mu yegsee paa bi mi ngi weex tàll tàll tàll tàll ak bi jaaw yonent bi daal ni leen dem leen ngeen fuddanal ko sikkim bi moo gën a rafet waaye xool li mu wax dani su ngeen ma xamaloon ni góor gaa ngi ñëw man yonent bi maay déplacé wu dem fekki ko fa mu nekk ngir teralee ko Abubakar allahu akbar allahu akbar ci lislaam ba lislaam daj ku mës a tuub si yaa ñëw fekk ci yonent bi waaye kii moom buñ ko bàyyi woon ak sagoom moom yonent bi mooy dem fekki ko dégg nga li mu ikraman li abi bakar dama koy teralee abu bakar mbokk yi abu bakar foor na de xoolal yonent bi saa sallam ak martaba jim am li nit ñee ko soxla ñoo ko war di fekk si moom mu fas yéene koo jagleel benn waay ngir lan ngir doomam sama waay la kooku yonent bi fonk na ko lool sallallahu alayhi wa sallam amir ibn al nee na benn bis dañoo àndoon ci xare ñu dem ba ci yoon wi ma wéet ak bi ne ko waaye yonent bi yow koo gën a bëgg ci àddina kan nga gën a bëgg ci àddina mu ne ko Aïcha mu ni ko waxuma ci jigéen ñi de góor ñi laa wax mu ni ko bàyyam dërëm bi génn gaal ci bi <laughs> loolu nag góor ñi buñ ko faral di wax nag boo yoree ay soxna moom soo bëggee jàmm bu ñu la laajee ko <laughs> gën a bëgg ne am na laaj yu dul tontu loolu boo ko defee li jigéen sa salam jiggu la de loolu góor ñëpp nañ ci bàyyi xel nag loolu nag loolu tekkiwul Aïcha mi yonent bi gënoon na bëgg Aïcha moo doon wax ne xam nga ñu bari boo nee diw diw la gën a bëgg rek mooy jeng na xam nga ñun loolu ñun moom maanaam Sénégal dafa gàtt dégg ba nga xam ne léeg-léeg li ngay wax ak li ñuy wax dafa nuróowul mbirum bëgg mbirum xol la kooku kenn gis nga ñaari ginaar yuy xeex sax boo ñëwee di nga am boo xaram kooku yàlla moo ko def ci xol mënoo ci dara waaye Aïcha mi nga xam ni moom lañ jàpp ni moom lañ gën a bëgg Aïcha moo ne yonent bi saa sallam góor gu ko gën a maandu mu ni li mu daan séddaleeg wàllu ay yi ñun ñëpp la doon yamale daawul gënale kenn waaye nag mbirum xol nag Aïcha la gënoon a bëgg kooku fadlullah yutti ma yasha wallahu dul fadlil azim say doom sax di nga am ko gën a bëgg na nga maandu te bu ko feeñal benn bis yonent bi alayhi salaatu wasalaam dani képp ku jël alalam dépensé ci yoonu yàlla ci ñaari façon yu wuute dinañ ko woo ci buntu ajana yi kaay jaar fii bunt bi naa ko kaay jaar fii buntu bi naa jaar fii su fekkee nit ci jaamukatu yàlla woon ci julli bunt julli moo naa ko sawaay kaay yow fii nga war a jaar booy dugg ajana mbokk yi lu réengu su nekkee woorkat ga beneen buntu bu ñuy wax ar rayyaan moo lay wax eh kaay sawaay kaay jaar fi yow fii nga war a jaar pour tàbbi ajana su fekkente ne joxekatu alal nga bunt moo lay jaar Abubakar daan ni yonent bi waaw kon de xanaa dina am koo xamante nii moom bu fekkee moom jaamukatu yàlla la bu mag woorkat la jullikat la joxekatu azaka la xanaa dinañ ko woo ci bunt yëpp yonent bi ni ko waaw waaw te yow mii tey ngay bokk yow bunti àjjana yëpp ñoo lay woowandoo allahu akbar Abubakar yonent bi ko yow buntu àjjana yi yëpp ñoo lay woowandoo benn bunt bu nekk nan kaay dugg ci man parce que jaamu yàlla yi benn bu ci nekk Abubakar daf ca fooroon trop te li gën a yéeme mbokk yi bu ñiy tàbbi ajana tàbbee ajana yal na suñu borom boole ci gis a malaaka yi dañuy buntu bii buntu bee buntu bële buntu bële juróom-ñetti buntu ajana yépp malaaka yi dañuy duggaloo di félicité waa ajana di leen félicité loolu mbokk yi jar jaamu yàlla ba bëgg dee walmalaikatu yadxuluuna alayhim min kulli baab salaamun alaykum bima sabartum allahu akbar yàlla mu ni malaaka yi di dugg ci bunt yëpp yëpp yëpp di leen teg di leen di félicité ah yéen tey moom seen affaire baax na di wax ay wax yoo xam ne kàddu yooyu rek su mu waay kontaan loola nit salaamun alaykum jàmmi yàlla yàlla na nekk seen kaw bi ma sabartum yéen da ngeen a mu ñëw vraiment da doo woor fanaanee julli ah alal ni mu neexee nga yëkkati ko di ko joxe yi ay jëf la yoo xam ne ku muñul mënoo ko te ni'ama uqba dar yal na borom bi defal nu loolu subhanahu wa ta'ala moo tax imam ibn al qayyim bi muy tag aw bakar ca téeréem bu am solo boobu di an nuniya dane wala sawfa yud'a al mar'u min abwabiha jam'an إذا وفى حل الإيمان منهم أبو بكر هو الصديق ذا كخليفة المبعوث بالقرآن ci noonu ya ibn al qayyim mu ni dees na woo benn nit ci bunti aljana yépp kaay dugg fii kaay dugg fee kaay dugg fee yaay choisir bunt bu la neex nga ñëw dugg fa bu la neexee nga duggee ci bii génn duggaat ca bee génn dugg ca bële nee na su fekkee dafa dajale yi ñu soxla ci nit ki pour mën a koo woo ci bunti àjjana yépp mu ni minhum abubakar abubakar ci ñooñu lay bokk ne zaaka xalifatul mabuuxi bil qur'an kooku mooy xalifa ki nga xam ne sunu borom da koo yónni ci alquran mbokk julit yi abubakar bëgg gi mu bëggoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci boppam moom nga mënul am nattukaay pour natt ko ba xam ci xam ngeen ni sa ngëm yàlla mënta wér lu dul yonent bi moo gënal sa baay sa yaay say doom sa alal wan naasi ajmain mbokk yi ku jóg ci ñu nattal sa bopp ndax yonent bi moo gënal sa baay ak sa yaay waaw wala déet même bu dee waaw est ce que la gënal sa jabar waaw wala déet même bu dee waaw est-ce que moo sa doom waaw wala déet alal moom dafa takkalal est-ce que moo la alal nga xam ni pare nga pour ñàkk yooyu yëpp ngir bëgg ngir bëgg yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo ne boo toppee dund saxaaba yi de da gis ni ay sacrifice lañ doon def yoo xam ne da lay wan ni ñii faale wuñ seeni njaboot wala leneen bu fekkente ne yonente bi taxaw na sallallahu alayhi wa sallam maanaam poids bi ñu ko doon jox mbokk jullit allahu akbar da gis koo xam ni ak fett mooy jóge fële jëm fi ci yonent bi mu teel koo seen rek mu plongé taataan koog dënd bi Abu Dujaana def na loolu seen ak fett di ñëw seen ak fett di ñëw mu xam ni bii ci yonent bi la jëm si te xam nga fett gi moo daw di ko tee dafa daw taxaw ci kaw yonent bi ci kanamu yonent sa salam pour fett ci dal ci moom Abu Talha nee na keroog Uhud nee na gaañ nañ ma gaañ yu metti ci sama tànk ba mënumaa dox déglu lu baax Abu Talha dañ ko gaañ ci tànk ba mënta dox nee na fi may kalaj jee sama tànk bi ma seen yonent bi daanu ci am pax ba bëñ bi fell oom bi gaañu ma xam ni kii su ma ko bàyyee fii yéefari danañ ko jekkali nee na ma wax ak sama tànk bi ni ko fi mu ne nii yaa ngi metti waaye saye boo nga jéem dox tey ma boot yonent bi صلى الله عليه وسلم نانا نون لاكو جيلي بوك تي لي گنا يمي موي خام ген ييك لو گنا يوري فوا بو ييك موي گنا ميت تي ابو طلحه دا دون ييك تي كاو خير يي پور جالاك موم تي گنا خير يي لاخ كو فا نانا سوما تانك باغي ميتي با مونتا دوخ waye lagat lagaje nako bas bot yonent bi yeg ak mom ci kaw montagne bi wacc ci gannaaw laq ko fa bim ko fa laqé lan mo def tank bi ak weñ mi ngi ni sareet dugg ca biir saxaaba yi ñëw xëcc xëcc xëcc xëcc affaire bi mënta dañ abu xataada jóge fële tàngooru yaramam rek ñëw ni ku nit ŋànk ko gis nga bi mu ko ŋànkee xëcc bëñ bi mu ñu tëll dam di bëñ bi dammee affaire bi def la aw jaal ndeke jaal bi da koo war a yokk taar bi affaire bi jàllee saxaaba yi dañ ni ko ba ñu gisee jaal ba tey mosuñoo gis jaal wu rafetee nii ci kaw suuf subhaana rabbika al aala xoolal loolu maanaam dindi gi mu doon dindi ak weñ ci ba ñu yéen sa moo ko def jaal saxaaba yi nee nañ maanaam dafa am saxaaba yi ñoo xam jaaluñ sax te nee dañoo bëgg a jaal ngir Abu Qataada parce que affaire bi daf ko jàpp léegi nag kon bu doon suñu jamono ji kon dañoo jëratul muy poosé yi parce que nit ki koy def te jàpp ne lii rafetul ñu nit ñi dafa am ñu jaalul bëgg a jaal sax ngir sabab bi ni mu rafetee yonent bi alayhi salaatu wasalaam benn bis ñu wàññi saxaaba yi fekk islaam mi ngi doog a tàmbali mat nañ vingt et quelques aw Abubakar ñëw ci yonent bi ni ko fi ne nañ génn lu ñu am jël boobu dañ doon làqatu lu tax ñu doon làqatu parce que yéefar yi buñ leen gisee dañ leen di fitnaal te mbokk jullit yi mbokk jullit ñu ñàkkuñ dara yi fi neex na tey de sedd bii yaa ngi sàngoog say mbaaj sedd bii yaa ngi sàngu sa mbaaj gis nga keroog ahzab xusayfatan nee na affaire bi dafa sedd sedd sedd ba dañ doon gas ay pax comme jaar yee kañay ni ñuy gasee pax pour dugg ci biir ndax mu ci sedd bi gasam pax xool gas am pax ma la pax mu def nii de pax mu def nii da koy gas ba mu rëy ba nit xëcc mu ni nga dugg ci biir ndax mënatuñoo muñ sedd bi sa jàkka ji ni mu rafetee sa kër gi ni mu rafetee sa mbàjj mi ni mu nooyee nga xool saxaaba yi nga xamante ni ñoom ñoo la gën fuuf genn wàllaatu li nga am amuñu gis nga bi loolu amee yonent bi ni ko déer Abubakar bu ñu génn bu ñu génn dañuy fitnaal Abubakar ilxaax yonent bi maanaam ilxaax mooy insister bañ génn gis nga bi ñu génnee ñuy dox ba mu yàgg coow dox ci diggante jullit ñeeg yéefar yi benn waay bu ñuy wax Utba bett Abubakar gannaaw rek ngàdd mu daanu ma bakkan ndeysaan dafa xaw na tuuti bi mu ko ngàddee mu daanu xam nga nu mu def Utba moo bon dafa ñëw toog ci ndigg li jël aw dàllam di dóor bopp beeg kanam bi morixu yi dañuy wax da koo dóor dóor xam nga léeg-léeg doomu aadama mën na am ay gaañu gaañu ba boo ko xoolee doo ko xàmmee Anas ibni Nadr keroog Uhud jam nañ ko ci ay jam-jam yoo xam ne saxaaba yëpp ñëw nañ ba tiim ko mënuñu koo xàmmee ndax jam-jam yi rakka bu jigéen nee na bi ma gisee jaaro bi ci loxo bi laa xam ne kii mooy sama rakk nee na loolu dong laa ko xàmmee waaye jam-jam yi tax na kenn xàmmeetu te xoolal li jam-jam yi metti metti yonent bi ni wër leen saxaaba yi kan moo faatu ki mu yabal nee dafa ñëw fekk anas na nadr ci sukuraat mu ne ko ana yonent bi mu ni ko yonent baa nga mu ni soo demee jottalil ma yonent bi nuyoo nee ko manqué sukuraat damay dee waaye jottalil ma saxaaba yi nee leen bu ngeen xullee ba dara laal yonent bi lu tolloo ku dëkk te fekk kenn ci yéen mi ngi dund yàlla du leen ko jéggal subhanallah daal di faatu bu ngeen xoolee ba lu tolloog jam-jamu dëkk laal yonent bi te fekk yéen kenn ci yéen mi ngi dund am ngeen problème yéen foofu la ak dugg yam gis nga bi loolu amee Abubakar xëm bi Abubakar xamee ñu jàppoo ko yóbbu këram ci digg bëccëg bi ba ngoon jot ximilikuwul gis nga nag am na koo xam ne moo tax laa laa gars man ne gis nga deret dafa foor de mbokki Abubakar yi nekkul ci lislaam sax seen deret commencé jub ñu ñëw ci kër ba ñu leen gis nga kii bu ximaliku tey yéen ñëpp nañ leen faagaagal tey te ñoom am na ci yoo xam ne tuubuñ sax dugg ci lislaam Abubakar Abubakar Abubakar fëgg fëgg tëb til til laal sotti ndox mu xëm de bi ñu demee ba jant bii waaja so ci la Abubakar doog a ximaliku bi mu ximmalikoo xam lu mu njëkk a wax xoolal leen ma yonent bi lu ko daal te moom kanam gaa ngi ñëw ba ni fodd mi ngi tëdd journée bi yëpp dafa xam bi mu ximmalikoo yonent bi la njëkk laaj kooku ndax yaakaar ne bi muy nelaw kon mi ngi ko doon gént mbokk yi daal di mer lan lañ mer yow ñu ngi sonn ci yow ñu jox ko mu lekk nanguwu la lekk ñu jox ko mu naan nanguwu la naan mu ne du lekk du naan fii xaw ma ndax yonent baa ngi ci jàmmam déet yaayu Abubakar dafa mujj yabal benn jigéen ni ko demal nga wëral ma dimbali ma nga wutal ma information ba xam mi ngi ci jàmmam déet nga bi ñu wëree xam ni mi ngi ci jàmm am ndéet yegg si xanaa mi ngi ci jàmm doy na biñ ñee ko mi ngi ci jàmm mu ni même lekk ak naan du ma ko def lutul dama cee teg sama bët mu wóor ma ni mi ngi ci jàmm ma doog a lekk doog a naan xam nga nuñ def dañoo bàyyi ba jant bi dugg tuuti timis jot heure bi ñu jàppoo ko jàppoo de mënta dox ñu jàppoo ko ba mu ñëw tiim yonent bi sallallahu alayhi wa xam ni mi ngi ci jàmm mu doog a jël lekk bi lekk ah mbokk yi kii bëggoon na yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam bi mu paree mu ni yonent bi kii sama yaay la mi ngi tudd ummul xayri yonent bi kii sonn na ci man de kii ñaanal ko mu tuubaay yonent bi ñaanal ko ndaw si tuub mu ne ko sama yaay la de sonn na ci man de gis nga nag fonkal sa way jur góorgóor lu baax yonent bi ñaanal yaay ji yaay ji tuub dugg ci lislaam Abu Bakar yàlla defal na ko tawfiq yaayam tuub na baayam tuub na ñépp ci loxol yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk yi eh, Abu Bakar ci jëmmi boppam kéemaan sunu borom la woon nu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mi nga xam ni moom mooy baaxe ay jaamam ci ay xéwalam yal na yàlla xéewalal nu ñu ànd ak yonent bi ak abubakar nabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salihin nu ngi ñaan sunu borom an yarzuqna alfirdaws al aala wa an yuidana min adabih wa sal allahu wasallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain تؤذنهم نعم الله أكبر الله أكبر